venu ici euh, en tant que syndicaliste pour euh, apporter une main forte à mes camarades travailleurs ici à Expresso qui sont dans une boîte qui doit respecter le droit sénégalais. Parce que quand une entreprise étrangère s'installe dans notre pays, à travers le ministère du Travail, on lui expose un cahier des charges. Donc les entreprises sénégalaises sont soumises au droit sénégalais. des, des travailleurs qui sont dans leur entreprise, certains qui ont fait 10 ans, d'autres 7 ans, d'autres en tout cas un certain nombre d'années, et qui n'ont commis aucune faute et aucune autre faute que d'aller demander des informations à leur directeur général par rapport à des informations reçues qu'il y aurait eu dans cette entreprise des difficultés financières et que ces agents-là sont allés demander à leur directeur général quelles sont les informations exactes que vous pouvez mettre sur la table pour montrer ou pour prouver que l'entreprise est en difficulté financière. Mais puisque les états financiers ne montrent pas ces difficultés financières, mais le directeur général autoritaire décide, décide, décide donc de se séparer de ces agents-là, tout simplement parce que ces agents-là ont demandé une information liée au fonctionnement de leur entreprise. Mais si ce n'est pas de la dictature, ça, qu'est-ce qu'on, comment on peut l'appeler Donc aujourd'hui, ce qui est en train de se passer ici à Expresso, c'est inacceptable. Personne ne peut l'accepter et nous exigeons du président de la République, à travers le ministère du Travail, que le directeur intérimaire puisse être convoqué dans les meilleurs délais et qu'il soit recadré. Il faut qu'il soit convoqué par le ministère du Travail, Sambassi, avec des instructions fermes du président de la République Macky Sall, parce qu'un bon président, il doit protéger ses compatriotes. Oui. On ne peut pas être dans notre pays et être des étrangers dans notre pays. Permettre à des étrangers de venir s'installer dans notre pays et de traiter les Sénégalais comme des esclaves, pas. Nous ne l'accepterons pas. C'est qu'aujourd'hui, ce que nous exigeons à travers cette mobilisation des travailleurs et de la société civile, ce que nous président la République, du Sénégal, c'est au moins pour cette fois-ci qu'ils protègent les Sénégalais qui sont ici présents. Des Sénégalais méritants, des Sénégalais qui ont toujours payé le droit, des Sénégalais qui ont étudié dans ce pays, des Sénégalais qui travaillent dans une boîte qui doit respecter le droit sénégalais. Le président de la République doit du, président de la République une protection totale des Sénégalais, qu'on n'expose pas les Sénégalais. C'est ça que nous sommes venus dire aujourd'hui à aller jusqu'au bout. Nous allons encadrer les travailleurs. à travers les organisations syndicales, à travers les organisations de la société civile, pour que ces travailleurs-là puissent rester dans cette boîte parce que cette boîte n'a aucun problème, il n'y a aucune crise financière. C'est simplement les mauvaises humeurs d'un directeur intérimaire qui veut les expulser de cette entreprise que nous n'accepterons pas. Donc ci gàttal may wax ne tey li ñu fi indi en tant que syndicaliste mooy dañoo am suñu moroomu liggéeykat yoo xam ñu ngi fii ci Expresso ñii liggéey fi juróom-ñetti at ñii juróom-ñaar ñii fukk ñii fukk ak lu teg di fi liggéey amuñu benn problème ci entreprise boo xam dafa ñëw Sénégal installé wu war a respecter droit Sénégal parce que Sénégal du réew mu wuyaa wuyaa ba ku nekk mën a jóge fu la neex ñëw jaay sénégalais yi doole te dara du la ci fekk ñuy leeral nag ni moom mi am ni mooy jiite kër gi Expresso nee na autorité autorité sénégalaise yi ñoom ay xaritam lañ mhm. kon ça veut dire def na leen ci poosam bu leen defee ci poosam nag ñoom autorité sénégalaise yooyu la ñuy waxal ni leen du ñu nangu ñuy jaay doole ay sénégalais parce que mënta joge Soudan ñëw fii installé fi entreprise di xoqatal sénégalais yi di leen jaay doole parce que sénégalais ñoo dem ci biroom ko ñun lii ruuma daat ne entreprise daa am problème lan mooy information yi koy firndeel mais koo koy jox ko information yi bu dee am nga ko waaye bëgg koo jaay doole ni ko léegi comme ñëw nga fi di fa laaj ay information sax dama lay dàq faral ndaxte yéen seen réew réew wuyaa wuyaa la lu neex waay def kooku nag kenn du ko fi nangoo tey kenn ko fi nangoo ëllëg moo tax ñu ni président Macky Sall na wax ministre du travail Samba si mu convoqué le directeur intérimaire ak équipe mu ñëw mu yamale ko place am yamale ko place am wax ko ne Sénégal fii mënoo fee ñëw bëgg ñoo jaay doole sunum réew def ñu fa ay doxandéem te yaay doxandéem kon nag li ñu bëgg mooy liggéeykat yii mu bëgg a jaay doole di juróom fukki liggéeykat yoo xam defuñu dara na dellu ginnaaw su bëggee jàmm su bëggul jàmm dinañ taxaw ñun encadré liggéeykat bi xeex am na kon li ñuy demandé mooy président de la république Macky Sall pour cette fois-ci au moins na won sénégalais yi ni ñun la fi nekkal moom président de la république que nekkalu fi ay doxandem yoo xam day ñëw dina jaay doole parce que suñu bët xonqee ñun suñu président rek lañ am président de la république dafa war a nekk ci wetu sénégalais yi te sénégalais sonn nañ travailleur expression sonn nañ te lépp lu entreprise bi liggéey ñoom ñii ñoo liggéey kon nag mun ñoo taxaw leen jaay doole alors que entreprise amul benn jafe-jafe kon li ñu bëgg mooy président de la république Macky Sall encore une fois comme ñoom nee nañ yow yaa nekk seen ginaaw yaa leen di dooleel dooleelal sénégalais yi ndax dañ laa fal pour nga yiir sénégalais yi yërëm sénégalais yi kon ñu ngi wax ni nañu mobiliser wu kenn du ñàkk liggéeyam parce que entreprise bi nekkul ci jafe-jafe tax ñu war a ñàkk ay liggéey kon dañuy exiger la suppression de cette décision arbitraire de licenciement des cinquante agents de Expresso donc ci gàttal dañoo bëgg dogal bi nu jël pour juróom fukki ka juróom fukki liggéeykat yi nekk fi Expresso te defuñu dara te entreprise amul benn jafe-jafe ñu bëgg leen a dàq ci jaay doole ñu dell ci ginnaaw suñu bëggee jàmm suñu bëggul jàmm dinañ jàmmaarloo ak ñoom.